asalaamaaleykum internet Senego TV ak kawteef ñu ngi leen di nuyu di leen di dalal ci seen site préféré di kontaan saa su ne ñi ngeen di taxirlu suñu programme sur différente plateforme plateformes euh, saa su ne aussi it fii la ñuy toog rek di dalal ay ndaanaan su ko sujet yi laajtee ñu ñëw ci people politique wala société wante nag tey dañu dalal ki nga xam ne mooy Tahirou Sarr naam sénégalais xam nañ ko mais dañ koy bàyyi mu nuyoo après ñu dugg ci présentation bi saa ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Senego TV ak Kawtef. maa ngi leen nuyu aussi di nuyu seen Senego ak Kawtef di nuyu sénégalais ak sénégalais yi aussi euh. Euh, di rafetlu invitation bi ak waxtaan bi ñu nar a yaatal incha allah. Mm. ñoo la gën kontaan déjà ci nuyu ak aussi bi nga ñëwee fii fekk suñu accepter suñu invitation fii ci Senego TV je rappelle que les internautes euh, monsieur Tahirou Sarr ancien secrétaire national la ci parti réew Rewmi déjà parti mi boobu sa bi mu fa génnee dafa créer mouvement wam sur le nationalisme mu ci def it ay jéego yu am solo tey ñu dalal ko fii ci Senego waxtaan ak moom li nga xam ne mooy actualité phare bu dominé ci côté politique actualité yi nag bëri na wante nag li ci gën a dominante bokk na marathon budgétaire bi nga xam ne jamono ji mu ngi jàll assemblée ak passage yu député yi ak seen comportement dinañ wax mbirum troisième mandat arrestation entre autres mais li ñuy njëkk a commencé rek mooy assemblée nationale euh, commencé nañ budget bi mais it bu ñu dugg sa ci budget bi carrément mais assemblée de rupture bi ñu doon xaar ba tey gisaguñ ko ndaxte même député yi même scénario la ñuy gis ne moom la ñuy répété ci assemblée bi. waaw assemblée moom euh, je pense que dans tous les pays ci monde bi assemblée nekkul lu yomb nag assemblée moom day mel ni benn euh, gétt boo xam da nga dugal ñoo xam ne faruñu ñu war a xeexante seen biir mais xeexante bi dafa war a nekk ci xeexante kàddu ak xeexante argument mais lépp tënku ci intérêt askan bi. Mhm. Euh, léegi nag Sénégal dafa nekk loo xam ne. yàlla dafa dafa ñu nattoo ñu fi nekk di diriger la plupart seen intérêt bopp moo leen gën a yitteel que intérêt askan bi de sorte que lu opposition bi mën a xeexal askan bi day day suulu dañuy foog ne bëri xuloo la dañuy foog ne bëri xeex la bëri coow la mais fekk intérêt askan bi lañuy ñuy défendre ci kaw ñoo xam ne dañuy yor alal dañu yor pouvoir dañoo yor informa dañoo yor euh, information ak communication bu fort léegi day mel ni dañuy dem ba jaxasee xelu sénégalais yi ci député yi leen représenté maanaam mooy député dëgg yi ngeen xam ne ñoom lañ fa teg pour ñu xeexal askan bi mm-hmm. loolu nag dafa yàgg nekk ci dëkk yu ne même ba ci dëkk tubaab yi dafa am maanaam assemblée dafa laaj ay xeex mais xeex bi du génn lu dul kàddu ak maanaam waxante dëgg ak waxante li nga xam ne moo euh, jubal Sénégal ak jubal sénégalais yi mm-hmm. man moom lu ma si jàngat lenn kese la mais mooy euh, passage au ministre de l'économie bi euh, et des finances je pense que bëgg euh, lewal lépp te war nañu mën a réfléchir Sénégal ci xalaat at euh, maanaam yoon koom-koom si suñu biir réew maanaam mooy économie intérieure mm-hmm. nag leb bi bëri na ñu ñu ñu ñu bëgg gëm ne leb bi mooy li nga xam ne moom moo baax moo baax ci sénégalais yi mm-hmm. te ñu koy leb ñoom ñoo koy dundee ñu koy leb ñoom ñoo si bànneexu léegi ëllëg dañuy dem yóbbu seen intérêt après bàyyi sénégalais yi ñi leen di yokkal courant ndox ak lekk pour fay leb boobu noonu. Mm. loolu na demee laaj ba kañ lay doon Sénégal te loolu mën mënul wuy alors que nu Sénégal configuré am nañu possibilité wu incha allah créer ce qu'on appelle une économie intérieure boo xam ne mm-hmm. maanaam ci suufu Sénégal lay jugee te su ma nee suuf Sénégal maanaam li nga xam ne moo composé Sénégal. Mm-hmm. muy impôts yi ci ñi fi dëkk ak impôts yi ak euh, taxes si ñu fi dëkkul donc loolu politique la. te lu ñu war a tamit mën a waxtaane la incha allah d'accord c'est c'est intéressant de le souligner parce que it Sénégal li ñuy wax ne dette bi <laughs> bëri na fii en plus ñu koy estimer tamit ak euh, modalité de paiement yi sa sa reste à bon mais bon loolu lépp aussi ci assemblée mais ba tey ci assemblée boobu euh, ci sa kàddu tout à wax nga ne député de l'opposition yi dañu ñëw pour xeexal askan wi mais dañu constater ne seen absence yi tamit euh, mu ngi xaw a bëri parce que bu ñu xoolee démb ci assemblée l'information bi nepp pas encore à 100 pour cent mais il paraît que am na absence yu bëri ci côté opposition bi te it bu ñu xoolee sa def euh, benn jàngat euh, jour bañ leen di investir ni ñu ñëwee woon en masse ak jamono ji boo xoolee assemblée nationale dañuy gis ay tête yoo xam ne euh, ça fait longtemps que doo leen fa sax seen. effectivement parce que man loolu waxoon naa ci bien avant nag dama leen ba ñuy expliquer cohabitation cohabitation. dama leen ne piège boobu ñuy dugg euh, du am benn njëriñ nag au finish euh, assemblée bi dinañu mën a am majorité wala jege ko mais bis bu vote yu nga xam ne dafa yitteel pouvoir bi amee y aura beaucoup d'absence ci côté opposition. pourquoi. parce que euh, dëkk bi dëkk corruption la te corruption bi ci politique bi la tàmbalee ba ci suuf donc suñu waxantee dëgg rek te yàlla tax am na politiciens yu bëri ñoo xam ñi ngi yëngu. Euh, di nduru luy kaasal askan bi di nduru lu fi toogal askan bi mais fekk seen bopp kese lañ fi toogal am na ñoo xam ne ñu ngi yëngu bëgguñu leneen lu dul maanaam fexe am yoon pour waxtaan ak ñi fi toog téye xaalis bi téye koom-koom bi de sorte que maanaam ñu mel ni ñi xeexal askan bi fekk euh, intérêt yi ñi fi toog kese lañ fi nekkal. loolu dafa am je pense que Sénégal nekkul euh, pays bu njëkk bu ko am. wax ji mooy bii lu tax mu xaw a fës te dina gën a yi sax nag bii maanaam euh, député pouvoir beeg opposition bi dañoo jege ci nombre. donc ça veut dire que li nga xam ne moo nar int moo nar a nekk intérêt pouvoir bi plus ñu koy votélu plus di nga gis absence ci député opposition bi incha allah. absence boobu da ngay jàpp ne pouvoir da leen approché defu jox leen enveloppe ci suuf ker leen wala dafa am fu mu jaar ak ñoom ba seen présence duñ ko gis. waaw lu ne mën na am mën na nekk guerre mën na nekk tamit euh, calcul politique mais dans tous les cas moom euh, intérêt mi ngi ci xaalis mi ngi ci. d'accord Sénégal mooy doxee à suivre kon lay doon ah. ngi ci xaalis mu ngi ci mais ba tey ba politique euh, buñ ci toppee ba tey euh, ba tey ci intérêt boobu parce que gis nañ benn tollé bi am récemment euh, sur la toile avec la sortie de biram Souleye Diop mu nekk maire de Thiès noox déjà bi mu génnee patriotes yi génn nañ ñoom tamit ku ci nekk yaa ngi wax di fëgg sa dënn di ko rappeler à l'ordre waaw parce que sur le cas de Birame Souleye euh, man maa ngi suivre euh, euh, la chose si réseau sociaux yeeg ak si ñenn ñi nga xam ne samay xarit lañ te nekk ci biir Pastef et je pense que si cas bi ki nga xam ne moom mooy leader Pastef mooy Ousmane Sonko. dafa am benn projet boo xam ne daf ñu ko gëmloo d'ailleurs sax man ak moom waxtaan nañ ci te projet ça veut dire projet politique moom ak constitution ñooy donc ça veut que nu Macky Sall nekkee euh, gardien de la constitution sénégalaise noonu la Ousmane Sonko nekkee gardien de la constitution du projet de PASTEF bu mu ñu bu mu ñu jaay et je me que moom tamit wax ji interpellé na ko même si que waxagu ci dara enfin waxagu ci dara mooy maanaam depuis que Birame Souleye génne wax euh, avant-hier moom waxagu ci dara. Mm. et je pense que su liiree réaction wu euh, rakkam yeeg frère yi nga xam ne ñoom ñoo topp ci ginnaam ñoo ko gëm. ak nu ñu condamné affaire bi da koy wan ne ko lu mu jaay nit ñi gars yi gëm nañ ko gëm boo xamante ne su parole donnée taxawee dafa nekk loo xam dañ ko war a respecté dañ fa nekk loo xam dañ ko war a topp nag euh, cumul de mandat loolu yàgg na am ci politique mais fii nekkul am am bu mu yàgg am ci politique comme ni ko Birame Souleye expliqué mais li am mooy daa am lu ñu diggee lu fës lu ñu diggee askan bi gëmloo leen ko politiquer ko askan bi dem ba benn instant adhéré nangu leen ko di leen ko xeexal xeexal bu metti sax xeexal boo xam ne sax deret tuuru na ci bakkeen ñàkku na ci léegi kon suñu eggee ba fii ki nga xam ne moom lañ ne moom mooy numéro de après Sonko ci bi parti bi moom moo war a mën a njëkk am taxawaay bu exemplaire e lu gën a dangereux mooy fu mu ko defee fi ngay xamee ne ñu ngi wax Macky mu respecté kàddoom si ñaari mm. mandat donc ça bi dire que su biram su lay doxalee nii ba ñoom waa Pastef muy ku ci ndaw ba ci ku ci mag suñ ko cautionné et heureusement ko ñëpp cautionné ñu ko parce que gis naa ñu koy xeex suñ ko cautionné ba Ousmane Sonko mi nga xam ne moom mooy njiitu Pastef tamit dem ba waxu ci dara ba cautionné ko kon dina nekk lu gênant ak lu pesant benn nitu Pastef taxaw ne la Macky Sall amul droit troisième mandat wala Macky Sall war na kàddoom donc la suite logique mooy que euh, Ousmane Sonko wax ci muy wax bu kaw wala wax bu suuf mais lu ëpp solo mooy il faut mu marquer son leadership à protéger projet bi te projet bi dañu nekk non au cumul de mandat donc Ousmane Sonko war na mën a yeewu wax ak Birame Souleye rappeler ko à l'ordre mu jël décision boo xam ne dañuy effacer li dépasser ko te je pense que lii benn euh, croque-jambe la ci seen biir parti bi et gëm naa ne ñu ko te gëm naa tamit ne usman Sonko euh, àndu ci mais waxtaan la xam naa da koy may peut-être sa liberté de réfléchir sa liberté d'intelligence à accepter lu ñu diggee woon Sénégalais yi mais wax ji mooy su eggee ba fenn il doit après décision bi jóge ci moom après ñu xool nu ñuy nu ñuy avancé mais askan soo demee ba dig ko dara nga politiquer ko ñi ñi génn topp sa caravane xeex ak yow di werante foo xam ne nekkoo fa at lu mënti am li nga diggee te mu siiw da nga ko war a respecté. voilà est-ce que sortie Birame Souleye bi bett na Ousmane Sonko xaaroon na mu wax kàddu yi. non xam nga Birame Souleye tamit euh, su may commenté mook Ousmane Sonko euh, ñoom ñaar ñoo ñoo yem. ay ñoo yem génération et tou donc sa veut dire que mm. Ousmane Sonko lu mu nekk leader leader biram Souleye am na ñaari mbir loo xam ne mi ngi ci moom mooy benn kilifa boppam la. Mm. ñaar aussi itam am na liberté wu décidé wax ji mooy li muy décider nag dafa méngoo ak lu ñu diggee ak askan bi wala diggewul ak askan bi mais man su ma doon Ousmane Sonko dinaa ko ne eh, lii dañ koo diggee donc yaay xool boo ci am bu la ci gënal nga tànn ko beneen bi ñu xool nu ñuy def. Mm. loolu man loolu laa loolu laa gëm. wax dëgg yàlla parce que mënuñu toog tamit ci dëkk boo xam ne dañuy politiquer yoon politiquer lu rafet dem ba askan bi wóoluñu jox lu ñu ñu bëgg après nag soppi wax ji indi ko ci yeneen explication man ba ma ko déggee suivre naa génnam sorteem bi mais ba ma ko déggee mu naan ay existé wul loi bi existé na France mm. mais existé wul Sénégal ci la zappé parce que pour man waruñu toujours di méngale suñu bopp ci yenn valeur yeneen dëkk mën nañu comparer suñu avancement ci yeneen dëkk ndax da ngay am inspiration noonu mais dëkk boo gis dafa am valeur am ñun dañu am ñaari valeur benn bi mooy valeur religieuse mooy le respect à la parole donnée maanaam sa kàddu su xasee ba génn da koy joxe. Hmm. nga respecté ko beneen bi mooy nekk exemplarité si suñu doom yi nekk ci suuf ak suñu rakk yi nga xam ne ëllëg suñu ñëwee dañu xam ne ñu fiy jiitu wala ñu ñu xool inspiré ñu yoonu politique ñii sàmmkatu kàddu lañ dafa solo. Mhm. ba tey ci biram Souleye euh, parce que bu ñu gisee côté pouvoir ñenn ñi ñu ngi taxaw di tàccu naan euh, biram Souleye sorteem dafay wone benn facette ci ñi nga xam ne ñooy les patriotes mais aussi dañuy waxaat ne ki nga xam ne mooy Birame Souleye li mu nekk numéro 2 moo tax euh, patriotes yi di acharné wu ci moo ci ñoom pour décrédibiliser ko yow ban jàngat nga am ci loolu est-ce que it mun nañ ne entre guillemets guerre de positionnement boobu waroon naa am. non position Birame Souleye bi sur le cumul des mandats euh, pour man warul tax ñu attaqué Pastef warul tax ñu attaqué Ousmane Sonko lenn dafa am. mooy li ma la rek Birame Souleye magu boppam la kilifa boppam la. Euh, na mën nga yaa nit yàgg naa bokk ci parti euh, te du ànd ak xalaat ak doxalin ñeneen ñi loolu yàgg naa am man dund naa ko <laughs> donc pour te dire mais na fekk mu negu mu nekk ci loo xam ne dëgg la parce que dëgg kese moo am solo. Mm-hmm. Sénégal malheureusement dañoo am problème mu politique dëgg. wala suñ ko politiquer c'est pour am askan bi suñ ko amee après wor askan bi donc ça veut dire que Birame Souleye dafa am loo xam ne mooy li ma la wax da ko war a sauver ci moom. jëmmam ba pare itam sauver ko tamit ci Pastef ak maanaam euh, xale yi yaakaar bu ñu am ci Pastef am ko ci Ousmane Sonko. nag su dul dara warul sacrifier image Ousmane Sonko warul sacrifier liggéeyu Ousmane Sonko warul sacrifier constitution Ousmane Sonko bi mu tuddee projet pour Sénégal bu bees ci benn affaire poste. te loo xam ne dara wund ko lu dul maanaam calcul politique wala salaire donc amul amul solo pour man euh, mu tànn benn post ñu dépassé wax ji defe naa moo moo gën ñëpp maintenant nag côté pouvoir bi ñoom c'est normal ñu politiquer ko nag pouvoir bi ñoom euh, lu Birame Souleye yoon bi Birame Souleye nar a def nii maanaam mooy bëgg wax dara ba pare ñëw weddi ko ñoom seen njiit daf ñu ko tàmbal de sorte ko su ñu gisee keneen ku ci taxaw ci opposition bi mbégte la nag euh, nee nañu picc bu lakk <laughs> day soxla moroomam bu lakk tamit donc àdduna moo demee noonu quoi. te aussi tamit coowu troisième mandat bi tamit dafay rejoindre ni biiram Birame Souleye taxawee parce que waxu kàddu la. Mm-hmm. waxu dige la. Mm-hmm. dige dafa am loo xam ne yàlla moo la si njëkk bés. Mm-hmm. yàlla dafa ne maanaam abomination la nit di wax lu mu dul def loolu alxuraan moo ko wax. waaw maanaam mooy torox tànge la nit di wax lu mu dul def nit soo waree sa kàddu rek. xale nga sa yoonu toroxtaange mhm. te nag defe naa du question nga nekk jullit wala nga nekk catholique sax mais yoonu toroxtaange moom ci nit même bu dee gëmoo dara sax war nga ko mën a éviter sa bopp incha allah. Mhm. nemmeeku tour de Ousmane Sonko quelle sera la suite euh, avec ces gardes corps yi nga xam ne ñu ngi nekk en détention bon nemmeeku tour bi man euh, je pense que yoon la parce que Sénégal dafa mës a dundee malheureusement politique avant l'heure Sénégal. élection yi à deux ans trois ans gars dañ koy commencé préparer man dëkk naa bitim réew mais dëkk yu ma nekk la plupart su élection jotee c' est à à peu près neuf mois avant nga koy commencé xam te si si décisionnel bi sax six mois après gars yi commencé dugg ci benn pré pré tournée après su élection bi démarré ñu mën a def mais fii Sénégal deux ans à trois ans ngay commencé sa sa élection mais loolu culture la si ñun. maanaam euh, Ousmane Sonko njëkkewu ko euh, keneen njëkkewu ko. mais lu am solo mooy respecter sa adversaire politique dafa am solo mais éviter la détestation politique parce que malheureusement ci nguuru Macky Sall dañoo cultiver trop trop la détestation politique maanaam nekkatoo di xeex nit nag li mu wax arrangé wul askan wala mais da ngay xeex nit nag bañeel. nag mm. bu jël nit ki bañ ko yàq deram fàtte ne papa la fàtte ne tonton la fàtte ne frère la fàtte ne jëkkër la ba ci kaawu Ousmane Sonko mooy le cas le plus ci côté garde du corps mi dañ ko bëggoon juste retirer sa sécurité en primeur maanaam mooy xam nga nit soo demee ba wóolu ay nit ci sa sécurité maanaam suñ la ko dindilee dina am lu mu lu mu wàññi ci yow mais Ousmane Sonko le connaissant xam naa ne ku fugga la ñoo yem ci côté boobu noonu am na loo xam ne lépp loo def pour gàggal ko danga nga koy gën a may yokk fit mu yokk vitesse bi pour dem yoonam. c' est malheureux maa ngi condamné aussi arrestation arbitraire yu garde du corps Ousmane Sonko di ñaan yàlla le 29 incha allah ñu ñibbi seen kër. ndax man li ma gën ne da ngeen ko jàppee amul benn njëriñ ndax soo nee diw yi nga xam ne ñoom ñooy ubbil Ousmane Sonko euh, bunt ñooy bokk moom oto ñooy wër otom nga jiin leen euh, agression boo xam ne ñoom nekkuñu woon sax ci bi alors que soo comme xoolee Ousmane Sonko sécurité bi dafa composé benn process boo xam ne maanaam dafa am ñiy garder Sonko am ñuy garder ñiy garder am ñiy garder ñiy garder ba mu génn ci biti kon soo ma jiinalee ñeneen ñi ci biti mën naa ko gëm mais soo ma jiinalee ñi nga xam ne ñoom ñoo ko wër carrément sur les quatre côtés kon loolu ban moment lañ la bàyyi Ousmane Sonko en danger pour dem di xeex ay nit après ñëwaat <laughs> bëgg garder Ousmane Sonko amul sens. <laughs> internet Sénégo TV ak Kawtef je rappelle que monsieur Tahirou Sarr lañ dalal fii moom nag euh, mu ngi nekkoon ancien secrétaire national du parti mi en même temps nag mu nekk njiitalu mouvement le nationalisme euh, tey monsieur Sarr euh, njiitalu mbirum troisième. troisième mandat ñu ngi ciy wax ñu ngi ciy euh, artu ñu ngi ciy def ay révélation gëm nga ne Macky Sall dina def troisième mandat wala stratégie la rek pour mën a yëngal opposition bi. Euh, gëw ma ne dina def troisième mandat te ñaan ma yàlla mu def troisième mandat mais gëm naa ne dina def troisième candidature parce que loolu lu mu yàgg sóor la. Mm. te ba mu koy sóor mi ngi ko sóor même avant muy am deuxième deuxième mandat. Euh, te ñoom ñu ko wër xam nañ ne loolu la mës a bëgg ba muy avant muy dem élection 2019 moom mi ngi xalaat waxu troisième mandat te waxu ko même si sénégalais dañuy xaar mu wax ko ci gémminam mais nit doo ko xaar juste si waxam mais ci ay jëfam nga koy nga koy xaare ci référendum bi lu tax respecté wul premier sept ans bu mu diggee woon maanaam premier cinq ans bu mu diggee woon ndax dafa waxoon ne su ma ñëwee damay def mandat de cinq ans comme premier mandat def mandat de cinq ans deuxième mandat incha allah après bàyyi su ma mu ñëw war kàddoom def mandat de sept ans parce que dafa xam ne su référendum bi su defoon mandat de cinq ans day enchaîner automatiquement la nouvelle constitution léegi nag pour ne pas dugg ci nouvelle constitution bi il a préféré dem jeexal sept ans léegi nag si beneen constitution bi si seen tubaab ñoom bu ñu comprendre que maanaam premier cinq ans bi mooy premier mandat léegi dañuy laaj maanaam deuxième quinquennat moo waral léegi seen expression de deuxième quinquennat ba mu gagné élection 2019 yi wanewaat na ko ci beneen fànn. dafa ñëw créer maanaam son programme de fast track bu mu usurpé ci président Kagame ñëw créer benn cleaning day set setal et tout mu génn sol benn casquette bu ñu bind 24. xam nga président de la république buy génn sol casquette bu ñu bind 24 loolu du. du hasard. mais est-ce que du cokkaas stratégie. pour yëngal opposition bi tamit pour seen xel wala seen débat mu orienté leen aussi. xam nga nit nit nit ñaari melokaan nga am jëf ak wax am na sax benn ñetteel ma maanaam jëf at wax tamit en même temps Macky euh, dafa opté moom si teg ay pas ci lu mu bëgg jëf li mu bëgg mais du ci wax. am na événement yu bëri xew na Sénégal yoo xam ne waroon na mën a ubbi gémminam waroon na mën a waxtaan ak askan bi par respect rek si lu mu ñuy jiite mais tellement noyé si jëf bi que day jàppe ne jarul wax te loolu manquement la si si njiit si kuy jiite dëkk. <laughs> léegi nag côté troisième mandat bi ñu ngi dox jëm co mais incha allah man xam naa ne dina dina foncé nag moom xamul lu loi tere xamul lu droit maye moom leen rek la xam li mu bëgg la xam te da ci dem ba mu jeex. ku yaakaar na nag ne mag yi xalaatul troisième mandat wala day bluffé wala am na ku muy waajal loolu ay waxi yàqu la waajalul kenn parewul kenn la preuve soo gisee parti mi ñu muy fexe ba ñu génn wala ñu muy fexe déclassé wala ñu muy fexe ba duñ doon maire ba duñ doon ba duñ am fief pour rek juste maanaam les rendre incrédibles de façon très politique mm-hmm. si ngay xamee ne parewul pour faire pour se faire remplacer par qui que ce soit loolu kese la déen waa le moment venu dinañ ci xam dara <laughs> dina dina gën a leer. dina dina leer le moment venu ba tey ci troisième mandat boobu ndaxte bu ñu gisee ki nga xam ne muy Pape Alé def na ci ay révélation def na ci it ay live ba tey duñu ne sa troisième mandat bi moo waral arrestation mais yeneen cause yoo xam ne euh, daal dinañ ko téye ba presse bi ñoom ñëpp takku nag euh, di ko jàppale di def ay manifestation tey euh, ban message ngay. lay véhiculer euh, ci presse bi précisément ci Pape Alé mi nga xam ne mu ngi euh, Sébikotane bon déjà damay condamner arrestation wu ak emprisonnement Pape bi parce que pour man Sénégal dépassé na fi ñuy jàppee journaliste surtout journaliste boo xamante ne euh, mujjulu président yi fi jaar yëpp am na foo xam ne moo leen ubbiloon plateau ba ñu leen ragalee ubbi plateau Pape moom yàlla da ko def c'est un journaliste très spécial nag euh, dañ koo xeex mu liggéey ci ay télé gars yi jaxase ko borom télé yi génnee ko ci télé yi mu dem ba jël yoonu boppam dañ ko persécuté euh, xatal ko ci Sénégal mais mu toog gëm Sénégal gëm ne fii la war a tekkee ba tey mu toog ko te pourtant am na dimension wu déjà journaliste international su ko neexoon il pouvait se faire embaucher si yeneen journal euh, yeneen euh, journaux yoo xam ne ñi ngi ci biti ci bitim mm. réew ba pare tamit am doole ba pare tamit am mën-mën mais dafa préféré toog Sénégal dund lii avancé loo dëkk bi léegi nag mu dem ba ñu jiin ko ay euh, divulgation de fausses nouvelle divulgation de fausses nouvelles yoo xam ne ñi ngi ko ko jiin te ñu ko ko jiin ba léegi weddiwuñu dañoo doyloo rek jàpp ko tëj ko xam nga divulgation de fausses nouvelles soo ko soo ko jiinee nit di nga am démenti maanaam man dama doon xaar gendarmerie ñëw génn def communiqué wala gendarmerie génn def conférence de presse wala point de presse wala procureur sax dans les pays sérieux c'est comme ça dans les pays sérieux lu institution bi mel ni gendarmerie soo ko accusé de dara dañuy génn surtout le procureur mooy génn setal ko après ñu ñu ñu fàtte mais fii nii on nous parle de secret défense mais man je pense que secret dépense bu ñuy nëbb wax yi waxu dépense la benn contrat bu génn la ci ay armement et tout donc du défense dépense la parce que dëkk yi nga xam ne dafa am démocratie dëkk yi nga xam ne nit ñi dañoo xam seen droit ñuy euh, maanaam financer maanaam armée bi di lañ jëndal ay arme yu bees et nekk lu ñuy nëbb amul benn secret ci loolu la preuve paradoxalement Sénégal 4 avril dañuy défilé 4 avril suñuy défilé lan la ñuy teg ay gendarme ak ay militaires ñooy commenté mini défilé pour lan la pour wan ne doole armement wu Sénégal ñoom ñooy toog ne arme bi jënd nañ ko temps jënd nañ ci temps jënd nañ ci lii pour lan pour wane ne Sénégal léegi mi ngi am doole mi ngi armé wu. Mm. loolu lan moo ci secret défense secret défense amu si secret dépense am na mais secret défense amul. kon nañ libéré Pape Alé rek te xam ne fu ñu jàpp foofu amul benn amul cohérence quoi parce que tamit su ñuy su ñuy def dara ci nit nañ ko def ak cohérence ñu expliquer ñu lii moo am. lii lii mooy si danger mais wane ay contrat d'armement expliqué ay affaire ba pare tamit maanaam ay affaire yoo xam ne dafa génn ci ci fu mu warul génnee dal ci journaliste loolu ñoom ñoo war a xam man na fan la faay bi jóge mais pas ñëw di attaquer benn journaliste di ko tëj di gëmloo askan bi loo xam ne amul voilà man loolu loolu laa gëm quoi maintenant nag sur le cas de l'armement et le contrat et tout secret dépense moo fi am c'est-à-dire il faut qu'on fasse la différence entre secret défense ak secret dépense Sénégal secret yi fi am yépp c'est des secret dépense parce que dañu tàmm di jël ay affaire di commander ay affaire di doubler prix bi di ko jëndee au vrai prix di pàccoo le reste loolu moo yàgg am Sénégal te c'est à dénoncer je suis pas le premier et le dernier à suñu yàlla mayoon 1000 Pape je pense que Sénégal dina toll foo xam ne ñi ñuy diriger dinañ xam carrément ci lan la ñuy ci lan la ñuy dundee. Mm-hmm. c'est à dénoncer ñuy ñaan yàlla rek dossier bi mu am suite favorable ba Pape ñëw continuer liggéeyam bi nga xam ne mi koy def fii ci Sénégal ñu ñëw rek deuxième partie bi wax ak sa mouvement bi nga expliquer internet yi euh, nationalisme bi lan nga ci bëgg lan nga ci undu lan mooy objectif yi. bon nationalisme bi déjà mouvement bi mi ngi tudd MNS mouvement nationaliste sénégalais. Mm-hmm. jël lu ñu moom. Euh, mouvement bi nag lu ko lu ko sooxe mooy déjà liggéey la liggéey boo xamante na la ne euh, ay enquête lëdu na ci mm. euh, def le terrain xam jafe-jafe askan bi xam fan la ñu mën a wàññee méttitu dund askan bi xam fan la ñu mën a yokkee wërsëgu askan bi mm. loolu moo ko mais lépp tegu ci biir Sénégal ci biir askan bi mm-hmm. mouvement nationaliste maanaam mooy doyloo sa dëkk doyloo sa doomu dëkk doyloo lu Sénégal meññ lu dëkk bi meññ ñi mën cee liggéey mën cee tekki ba pare nag yaatal Sénégalais ci biir Sénégal jox gëdd Sénégalais bi ci biir Sénégal euh, dañu dem ba seetlu ne euh, Sénégalais lépp lu soxal lu lu tax Sénégal nërmeelu wàllum économie la mais économie boobu noonu dafa lu si lu ko jiitu mooy éducation nationale bu Sénégal ñun ñëpp jaar nañ ci éducation nationale bu Sénégal malheureusement bañ ciy jaar amuñu woon kàddu dañoo judd ñu yar ñu ci ñu màgg ci moo tax majorité Sénégal yëpp kenn tekkiwul ci éducation nationale Sénégal nag lu ñu jàngal bokkul ak li yàlla mooñ ci ñun nag dëkk boo gis yàlla dafa am lu mu moon ci yow. li njëkk lu yàlla moon ci ñun te jànguñ ko te jëfandikoo ñu ko mooy suñu làkk mooy wolof. wolof bi moom la yàlla mooñ ci ñun. muy nelaw si ñun. su ma la dugaloon ci classe wu ñiy jàng nasaraan ak ñi jàng wolof da ngay xool xale yi jàng wolof nu ñuy sawaree nu ñuy maanaam sawaree daal. da ngay gis ñu sawar. su su koy jàngalee poser question sax ñëpp a seen loxo. ñëpp yàkkamtee tontu parce que li li ngeen di jàngal mi ngi nelaw si ñoom. léegi nag soo demee ci classe bi nga xam ne ñoom nasaraan la ñuy jàng dañuy tayal dañuy dangay xam ne ñi ngi jàng. ci naqar nag jàng làkku réew dalay tardeel ñoom seen bopp ñu ngi yëg tardement bi ñu am mais mënuñ ko sax comprendre mënuñ ko sax wax mais ñu ngi koy yëg ci neneen noo xam ne ñu ngi koy doxale léegi soo jógee ci loolu làkk bi moom mooy li nga xam ne mooy lu ñuy boole ñun ñëpp benn làkk mooy boole mille ethnie mm-hmm. benn làkk mooy boole mille xeet benn làkk mooy boole mille maanaam ñi nga xam ne bokkuñu sax gëm-gëm léegi nag li ëpp solo ci loolu mooy ñu xamee ko ne moom moo ñu mën a jëli ñu xamee ko moom mooy suñu yoonu koom-koom bu njëkk maanaam mooy jàngal xale yi ci làkk bi nga xam ne moom mooy làkk bi yàlla wërsëgal Sénégal mooy wolof suñ ko defee dinañ am scientifique suñ ko defee dinañ am ay expert suñ ko defee dinañ am ay mathématicien dañ am lépp dëkk yu ñu raw yépp lenn kese la ñu rawee maanaam mooy gëm seen làkk di ko doxee àdduna bi dëkk boo gis mu tekki làkkam lay làkk Afrique ngay ñëw gis ay dëkk yu emprunté wala adopté làkku jàmbur te làkk boo xam ne dafa njëkk ray démocratie ndax bañ ñuy imposer làkk bi kenn voté ko du référendum du dara donc ça veut que dafa jot lu ñu nàmp ñu jàngee ko génn ci complexe su tubaabe génn ci complexe ne soo làkkul français yow maanaam amoo mën-mën amoo amoo amoo kilifteef. amoo daraja mais loolu est-ce que du dem ba laal système éducatif bi parce que parfois day gis ay matières yoo xam ne dañ koy imposer élèves yi mais au final matières yooyu <laughs> du impacter ci seen carrière en fait. waaw xam nga dama lay jox exemple bu ndaw gis nga sooy xool sooy jàng mathématique ci olof xam nga. soo koy jàng ci nasaraan dañ lay expliquer na la x au carré. Mm-hmm. théorème. théorème bi léegi ci olof ñu ne la x kattan ñaar. Mm-hmm. léegi xam nga koo ne x Sénégalais boo ne x kattan ñaar day xam ne puissance 2 la. Mm-hmm. mais koo ne x x au carré carré ñaata côté la 4 côté la. su xelam ñaawee mën na jàppee ne c'est x puissance 4. donc juste pour t'expliquer que ne la lu ñu nàmp moo ñu gën a yomb. jàng moo ñu gën a yàmb comprendre que leneen te Sénégal instant bi nii da ngay xool soo demee ci étudiants yi dañuy gis étudiant boo xam ne mën na def bac plus 4 bac plus cinq mais soo ko joxee micro nga koy waxloo français day am problème wax français nag environnement immédiat bi olof la français bi su duggee école français lay làkk su génnee day dégg ñi làkk français américain bi su duggee école anglais lay làkk su génnee anglais lay dégg arab bi su duggee école su génnee arabe lay dégg mais Sénégal rek ngay jàngee wala si dëkku yenn africains yi ngay dugg làkk français génn dégg beneen làkk. kon maanaam yow li ngay jàng amuloo la njëriñ parce que nekkul muy luy doxal dëkk bi donc ça veut dire que il faut ñu xoolaat suñu éducation benn ñu juge ci loolu war a xool programme nationale yi ñun dañ ñoo yaree ci parcourisé maanaam mhm. mooy jàngal liir tari après jàngal tari mhm. te tari du xam-xam tubaab bi day génn këram romb benn fleur séen ko dina xam ne fleur bi nii parfum bii lay def wala fleur bi nii lii lay faj wala fleur bi nii mën naa si am lii mais fii Sénégal ñun liiral jàngal taril jeex na dangay xool maanaam suñu filière yi sax loo jàngal doo ko tari. waaw mi ngi noonu te alors que xam-xam weesu na lu ngay tari. xam-xam li ngay toog di def ay essais def ay expertise def ay observation ba mu jox la ay logique mm-hmm. après de logique en logique nga dem ba xam ne lii lii la d'accord yéen stratégie ngeen teg pour atteindre seen cible parce que aussi euh, programme bi riche na et tout mais ñi koy dégg ak ñi nga xam ne cible nañ leen bon programme bi riche na mais damay may dama may ma eggali tuuti ci fenn mm-hmm. beneen bi suñu jógee ci langue bi dañuy dugg ci maanaam présence étrangère ci dëkk bi xam nga euh, nationalisme bu ñu prôné du nationalisme comme le rejet des étrangers xam nga maanaam tubaab bi dañoo gëmloo ne nationalisme baaxul te ñoom moom la ñuy dund moom la ñuy appliqué léegi lu tax dañoo bëgg jaxase suñu biir ba ñu jàppee ne ñun ñëpp a yem te yemuñu sénégalais bi yemul ak keneen ku dul sénégalais man dama ko dund ci ay dëkk soo demee dëkk yeneen dëkk yi dañ leen ne tubaab bi yemul ak yow tubaab bi si seen biir sax ñoom yamuñu seen biir mais dañoo am fulla yi ñaar fulla yi dëkk bu nekk di làkk làkkam si seen dëkk benn ñaar fulla ku fi dëkkul di nga xam ne dëkku fi mais nag dinañ la xamal ne am nga place maanaam étranger yi am nañ place si dëkk bi étranger yi am nañ fi wàll mais étranger dañ fi war a am solo dañ fi war a am njëriñ loolu kese la kër bàyyi su bàyyi demee di dajale gan gan gan gan su yàggee doom yi ñoo koy bàyyi këram dem uti feneen fu ñu dëkk mm-hmm. te Sénégal fu mu ne foofu la toll nag dafa jot ñu recenser étranger yi xam lan mooy seen njëriñ ci dëkk bi xam lu ñu fiy def si xam fan la dëkk xam nan la ñuy dëkkee mais mënoo bàyyi dëkk boo xam ne étranger bu ñëw day dugg ñii di fanaan ci marché yi ñii di fanaan ci cantine yi ñuy jaaye mburu ñii di fanaan ci boutique yi ñuy jaayee ñii ñëw ne dañoo jël yalwaan def ko liggéey te duñu ay sénégalais suñu la yalwaan sax duñu sax la duñu sax làkk wolof dafa graw mais est-ce que dina yomb parce que Sénégal tey quoi qu'on puisse dire le mot teraanga daf ñu tënk ci lu bëri récemment li ngay wax ni am na benn animateur bu ko fi junjoon naan boo demee ci centre de santé yi ñu ci bëri extrait yi da ngay gis yenn santé yi mais du moment que mu wax loolu tole la woon ñu naan kii dafa dafa dafa siis wala bëggul ku nekk dëkkam du genre est-ce que tey suñu teraanga tënkuñu ci yenn yi man xamal ma tënk man dama gis ne doomu Sénégal tekki moo ma gënal doomu keneen tekki même si que doomu keneen kooku noonu contre ma ko nag wërsëg man yoruma ko man li ma gëm mooy sénégalais bi tekki ci dëkkam sénégalais bi jiitu ci wërsëg si dëkkam sénégalais bi jiitu ci lépp ci dëkkam nag dëkk boo gis muy naar yi di Asie di fépp loolu fay dox yow nag étranger bi soo ñëwee. ñu xam ne charte yi nga duggee si dëkk bi ñu xam ne charte yi nga fi mën a toogee ñu xam ne charte yi nga fi mën a amee njëriñ nga dem bay cotiser di joxe si sa ga loolu mu lay créel lu ñuy wax maanaam épargne nationale na mm. épargne nationale mooy beneen kees si biir dëkk bi nga xam ne cotisation la ci ñi nga xam ne juddoowuñu ci dëkk bi ci nga xam ne maanaam ñàkkuñ ci dëkk bi mais ñu ngi jëriñu ci dëkk bi te loolu mooy yoon mm-hmm. dëkk su la maye hôpital ngay faju may la école nga fay wala say doom di fa jàngee may la sécurité ci police ak gendarmerie may la ay tali yu baax may la ay marché mais te dëkku fa mais da nga war a cotiser si loolu loolu gratuit wul léegi beneen bi mooy euh, présence étranger yi dafay dem ba créer maanaam ñàkk day ñàkk sécuriser intérêt wu sénégalais bi ci liggéey da ngay xool par exemple soo demee Diamniadio exemple xam nga Diamniadio ñu ngi fa nekk di tabax. xale sénégalais yi fii journalier bu njëkkoon li ma lay wax nii dama dama def enquête bi ah dama dem sur le terrain. poser ay questions xam li ma lay wax. dañuy gis xale sénégalais boo xam ne ba mu ba jëm ñaajo di soog a door da doon ñëw foofu di liggéey journalier 7000 7000 francs journalier xam nga loolu baax na baaxul mais baax na. ci mm-hmm. sénégalais. Mm-hmm. après yeneen nationalité ñëw yóbbu ko ba 4500 kon ça veut dire que ñu fay tabax dañuy dañuy génne doomu Sénégal yi téye ñooñu. après beneen nationalité ñëw yóbbu ko ba 3000 instant bi may xew nii moo tax léegi soo xoolee entrepreneur yi tabax Sénégal jëlatuñu doomu Sénégal yi te pourtant doomu Sénégal yi bañuñu liggéey de liggéey kese lañ bëgg mais bu dee yow sa njiit sécuriser wul sa intérêt ba nga xam ne même bu dee même bu étranger bi ñëwee mën na liggéey mais mën na am ñaar mooy étranger bi du fexe ba li may fayeeku man mu wàññeeku. mais étranger bi li muy li muy fayee fayeeku moom xam naa ne dina si dina am lu mu si dugal ci keesu état bi loolu moo am Chine moo am Europe moo am ci dëkku naar yépp nii léegi dañ lay gëmloo ne le Sénégal dafa rëy ci liggéey Sénégal bi bëggul liggéey Sénégal bëgg na liggéey mais su commencé liggéey dara ci 7000 beneen nit bu dul Sénégalais ñëw indi ko ba 3000 c'est normal mu gis boppam ci loolu nañ wax ni dëgg rek frustration lay créer te Macky Sall mii di toog naan ay dafay créer cent mille emplois mais avant muy créer cent mille emplois dafa war a recenser diagnostiquer les emplois yi nga xam ne moo existé ba pare. man su ma àndoon ak Macky Sall guddi yi nii ñu toog jël suñu oto man ak moom guddi dinaa ko ne monsieur le président fii nii am na temps d' emploi fii nii am na temps d' est ce que bu la woowoon di nga dem liggéey ak moom. non peut être ci conseiller ko parce que man sama liggéey soo bëggee dégg rek consultant politique la donc maanaam ci conseiller ko mën naa te man bind naa ay projet bind naa ay projet pour les emplois xam nga emploi dafa am ñaar dafa am yi nga xam ne état bi da ko fekk fi pré ba pare prévoir ko. Mm-hmm. am yi nga xam ne jamono moo koy imposer. Mm-hmm. instant bi emploi yu yu yu yu jamono mujj imposé si Dakar fu mu nekk nii le dernier emploi mooy booy jakartamaan yi nekk dakaar ñu ngi ñëw voilà état bi pour ñoom amul solution te pourtant solution am na mais dañoo bëggul réfléchir bëgguñu waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo am xam-xam ci loolu. te loolu dafa graw léegi da ngay xool moto tricycle yi sa sert à transporter. à transporter tout en minime quali en minime quantité wala moyen quantité mais ça sert à transporter tout. am na nu ngi koy customiser sax mën na dem ba ci àll bi ça peut servir à ambulance ci ñi nga xam ne dañu doon jël charrette wala itu man loolu bind naa ko te waxtaan naa seeg ay kilifa Sénégal ay ministre ay ñoom mais dangay xam ne amuñu benn envie. liggéeyal Sénégal non c'est vrai c'est la vérité amuñu envie bi et c'est grave man mën naa toog mën naa la dugal ci secteur de d'emploi yu bëri yii c'est à protéger et à sécuriser yii c'est à redimensionner ba pare nga injecter ci prioritairement les Sénégalais loolu soo ko Macky Sall defoon mais chômage bi non seulement day wàññeeku mais il n'aura même pas à rester là à faire euh, rêver et faire croire que mën na créer cent mille emplois parce que c'est impossible na wax ji mooy emploi ñu ko occupé man am na fu may raxasee sama oto bu njëkkoon. dama doon raxasu oto ba ma fay ñëw au début dama foog nu gis ay sénégalais ba ma voyagé benn instant ñëwaat dem fa moom mi ngi employé six personnes kenn ki mooy sénégalaise mooy jigéen bi te mooy gérer kees bi cinq yëpp duñu ay sénégalais dégguñu sax olof francais la ñuy làkkandi seen biir wala seen laa ko dëkk donc ça veut que sénégalais bi moom ubbi na raxasukaay oto. mais éliminé na cinq famille sénégalaises yoo xam ne waroon nañu mën a am salaire. soo demee ci yenn bërëb yi nga xam ne étranger yi ñoo ñëw investir comme ay hypermarché yu noonu sur trente employés vingt yëpp du ñu ay sénégalais vingt yëpp ay étranger lañ yow léegi loolu nan la sa doomu dëkk yow mën a yeewoo ne la maanaam euh, du ma mer wala du ma du ma kaas wala du ma toog naan ataaya mënul nekk. Europe am na liggéey yoo xam ne soo fa demee nii nationalité moo lay may liggéey bi man dund naa ko. mën nga gis benn sénégalais di liggéey dara mais na la wóor ne sénégalais ba noonu nationalité la am. mais fii nii ba ci taxi yi marché au poisson soo demee da da ngay gis benn maire boo xam ne yaakaarul lu waas jën nga waxaale moom benn 5000 francs pour mu waasal la sa jën benn booy bu nekkul sénégalais ñëw dee ne la ah man de euh, soo ma fayee 1000 francs ma waasal la ko. suufu meer ah. soo demee ville bu njëkkoon dañuy wàccee nu mu tuddati conteneur tegu ñu génnee trente mille sénégalais bu nekk cinq mille ñu wàccee conteneur bi léegi non non dix mille ngay teg woo dix lu dul sénégalais ñu wàccee le conteneur bi parce que lu ñu ay sénégalais te seen monnaie tuuti na tuuti boo xam ne loo leen fay ci CFA ñu jël ko. Mhm. xam nga dafa garaaw léegi après nga jóge ci dem ci suuf bi suufu Sénégal. ba Macky Sall nekkee fii ba léegi léegi étranger yi am nañ droit au foncier. te dafa garaaw da dem ville suñu maam lébu yi nga xam ne dañoo jot jaay seen seen immeuble yi ay libanais ñoo koy jënd jël immeuble bi defaraat ko gardien bi moo fay sénégalais. pour juste pour juste wax la ne la waa ji de naar la du loué nit ku ñuul nee na tubaab la bëgg wala naar ni moom. mais même loolu sénégalais yi aussi dañ koy appliquer da ngay woote soxla kër ñu ne duñ ko jox sénégalais. loolu courtier yi la bul bul bul bul jaxase xam nga bailleurs yi ak courtier yi du benn. Mm-hmm. courtier yi ñoom seen intérêt fi mu nekk mooy maanaam waxaale bu gaaw ba pare nax koo xam ne maanaam mën na nekk mais du bailleurs yi man xam naa bu baax parce que am na ñoo xam maa ngi ci waxtaan ak ñoom wax ji mooy. Sénégal dañoo war a def comme euh, lu mel ni yenn pays européens yi sooy dem bay louer léegi yow mi nga xam ne yaa moom affaire bi louer ko directement parce que européen ba ñu commencé gis waaw ba ñu commencé gis affaire maanaam loyer bi di kii dañ ils ont fait simple yow mii yaa moom sa apartement yaa moom sa kër am nga numéro téléphone tu es joignable mm. yow luweel sa bopp man gis naa fi ñoo xam ne c'est des bailleurs dañ lay louer sax sans laaj la caution wala suñu laaj caution benn caution nañ lay laaj waa ci foofu la nekk léegi soo jógee ci affaire soo soo soo ci foncier bi étrange bi day ñëw maanaam xam nga dañ ne ku moom sa suuf moom la jël sa suuf au lieu mu yem ci droit d'habitation ak droit d'occupation léegi étranger bi romb na foofu mi ngi am titre foncier te dëkk bu sérieux du jaay suufam te loolu dafa graaw te fu ñu jëm nii ci présence étranger yi nii tant que état bi su ko réglé wul man maa la ko wax a ah, ci ci xeex bu graaw lañ jëm sa c'est ça c'est la vérité xam nga gis nga phénomène soo amee sa dëkk soo ko contenirul wala soo ko essayé wul dimensionné de sorte que maanaam di nga xam ne man lii maa ngi koy maîtriser parce que état lenn kese la maanaam maîtriser chaque chose suñ la nee euh, raxaskatu oto yi di nga war a xam le nombre de raxaskatu oto ci dëkk bi suñ la nee jaaykatu feu rouge yi war nga mën a xam chiffre suñ la nee boutique war nga mën a xam cest à état da war a contenir ba pare tamit di temporiser di mais fii ñun suñu état lenn kese la ñuy def dañuy seetaan te loolu lu ko waral. idéologie yu ñu jiite ñoo baaxul da xool lu mel ni le socialisme moo fi njëkk Senghor a ko doore après jox ko Abdou Diouf socialisme mooy maanaam dundee sociale dundee dimbali dundee maye dëkk noonu du loolu dëkk industrie lay dundee dëkk transport lay dundee dëkk commerce lay dundee mais fii socialiste dañu doon toog ba benn instant ba dëkk bi metti ñuy génnee benn ay milliards ci maanaam gafaga état bi. jënd ceeb déwlin et tout ne dañuy maye. ñu gën a pauvre woo RTS wane ko nit ñi ne ah dëkk bi ñu ngi liggéey fekk liggéeyuñu tënk la ci ñaan tënk la ci yalwaan dindi sa dignité Ablaye Wade ñëw ak PDS parce que Macky Sall libéralisme libéralisme mooy wax leen lu leen neex def leen lu leen neex mais ñun ñii di jiite may leen ñu jàmm maanaam ñoom ñii di jiite diggante. palais avenue de la république corniche mermoz fan résidence mamel almadi ñoom ñoom ñoom ñoo fa dëkk ñoo fa tracé ñoom nañ leen may jàmm ñun ñi nga xam ñu ñoo dëkk maanaam ci tali yi ñu toj suuf beeg yooyu noonu ñun ñun nañuy wax rek di def lu ñu neex di jaayee nu mu ñu neexee su màggal tubaa jotee wala gàmmu ñu ñu yokk soble bi double prix su tabaski jotee xar bi nga xam ne en temps normal mëtul sax 10 kilos ñu koy jaayee 29000 wala 31000 su la neexee ngeen jaay ko 130000 suñu yoon neew ci te pourtant dëkk yi sérieux yi lépp lu jëm ci commerce dafa dem ak pesage même soo ko jàngee ci alxuraan commerce dafa ànd ak pesé. am loolu mooy réalité bi. <laughs> am na solo mais nag loolu moom la suñu mouvement. Euh. nationaliste sénégalais jël lu moom. Mm-hmm. di xeex. Mm-hmm. dañ ko créer te du yoon d'humeur comme maanaam jékki-jékki rek xalaat ko non. Mm-hmm. bañ ci paree 2015 dañ ko paree bind. doon xaar mët bi ak tal bi pour mën kee tàmbali. te ñu ngi koy tàmbali di ci woo sénégalais yi di woo sénégalais ñu ñëw jël lu ñu moom mais surtout xeex pour sauver Sénégal ndax Sénégal toll na ci tànk yoo xamante ne ëllëg fu ñuy li ñuy xaar ci pétrole gaz bi nii mën nañ ko bañ a am nag làkkuñu làkkam pétrole Sénégal sénégalais la olof la dégg gazu Sénégal sénégalais la olof la dégg ñu koy ñëw jël dégguñu olof anglais la ñuy làkk ñu ko bëgg gérer ci jël boobu noonu dégguñu wolof français la ñuy làkk kon ñun ñii di sénégalais di làkk wolof nàmp wolof dégg wolof. ñun lan lan lañ si dara am. am na solo monsieur Sarr li ñu mayoon ci minute euh, jeex na xanaa ñu bàyyi la rekk euh, nga wax sa dernier mot. tàggatoo ak ak internet yi xam naa dinañ la dalalaat bu baax fii ci Sénégal ndax waxtaan bi am na solo. incha allah waaw di rafetlu ci euh, bi rek nu mu tuddati invitation bi tamit di remercier borom kër gi Khalil ak El Malick ak yow. Euh, donc euh, di nuyu tamit suñu technicien bi incha allah euh, di woo sénégalais rek ci dëgg xam nga politique dafa ànd ak dëgg. Mm-hmm. te nationalisme amul lu ko gën a dëggu ci politique. nationalisme xam nga so seet seetloo lu ñu gëm gëmloo lépp pour maanaam kii la maanaam yor teraanga la yor donkaasi bi la mais politique u dëgg mooy nationalisme soo demee Asie di nga ko xam dafa ànd ak discipline ànd ak économie ànd ak réussite. te loolu ci lay woo sénégalais yi. mouvement nationaliste sénégalais jël lu ñu moom ci lay woo sénégalais donc di nuyu ñëpp di di di di respecter internautes yi di jégalu bu fekkee dafa am kàddu goo xam ne war woon génn te te génn na di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit ci àjjuma bi. merci beaucoup monsieur